waaw man maa ngi tudd Buri Diouf Jaxate maa ngi dëkk fii Ngent ci yoonu Nasru vraiment am nañu problème boo xam ne bii mënuñu ko xamuñ sax mënu nuñ koy réglé ñu koy réglé parce que les camions gros porteurs plateau yooyu régulièrement régulièrement wax nañ leen ni nañu bàyyi station non seulement dañu gêner circulation bi un de deux nous ne plus en sécurité ñaar ñett mooy dañoo am facilité gaare seen camion escalade yéeg ci sunu kaw terrasse waaye sunu biir kër te bulul benn ñaar conseil municipal ñëw na fi taxaw vraiment interdit leen ko dem nañu commissariat dem nañu euh, poste police bii ñu jige mais kenn mënul ci ñoom dara dara dara tey jii fi mu ne nii y' a combien de camion tey ce matin pas plus tard que tey ce matin camion bii nii borom ci boppam da ko fee gaare il habite cité Senghor les autres habitent à Mbour 1 Mbour 2 bàyyi ko fi dem yoonam léegi xamuñu kan la son homologue un chauffeur bi ñu xamee ne ñun la la ma ma propre femme femme dem na au commissariat pour gisi léegi le le le pour ñu régler ko ci la son son ami chauffeur ñëw ni léegi madame bàyyi léegi man j'appelle le gars mu woo ko waaye ne ko déplacé ma camion bi. mu soog koo déplacé mais dafa ñëwoon gaare ko pratiquement sunu buntu kër boo génnee à un mètre da ngay dal ci camion bi loolu ce n'est pas normal vraiment riverains yëpp sonn nañu ñu ci dara wax nañu ba tàyyi on est obligé maintenant de porté plainte au niveau du tribunal pour que léegi ñu xam ni ñun yoon am na parce que sonal nañu carrément voilà autorité yi sa ñu ngi leen di ñaan muy commençant par le préfet le gouverneur surtout le gouverneur le préfet le maire de Thiès le maire d'arrondissement nañ ñu dimbali xam ni ñun nous les riverains yoon bi nga xam ni moo joge ci rocade bi dem kër Nasrou sonn nañu tàyyi nañu ci camions yi ak d'autres véhicules parce que y complicité d'un gars boo xam ne xaw ma ku ko pour mu garer les camions ci refuge bi d'abord refuge bi nekk entre les deux artères ci rocade bi déjà kooku il est favorisé je ne sais pas par qui mais daal honnêtement sonn nañu parce que ñi fay stationner moyennant quelque chose la voilà loolu la ñu amoon ci li ñuy wax. suñu voisin bi waxee léegi camions yi ñun def ñoo sonal fii ci ngeen extension yoonu Nasru bi. lu nekk wax nañ ko pour jëlee leen fi muta man personnellement en tant que ancien conseiller municipal fii si Thiès Nord def naa benn plainte yóbbu ko police yóbbu ko mairie yóbbu ko sous-préfecture yóbbu ko préfecture yóbbu ko gouvernance yóbbu ko police centrale depuis deux ans boobu ba tey kenn nanguwul jël benn responsabilité pour dégager fi camion yi te fii c'est du garage camion ndax ñun nous sommes en insécurité total ndax euh, am na ay jamono ay malfaiteurs dinaan jël fii ay télévision écran plat ñëw di ko nëbb suuf camion yi ba pare di génn ci tali bi di wut ay ay ay taxi pour mën a dem donc bu ñu gisee loolu moo taxoon ñu jël décision ñi camion bu ñu fi gaare di gêner itam euh, population yi nga xam ne fii lañ dëkk léegi nag malgré tableau yi nga xam ne def nañ ko si si fii pour interdiction absolue garage euh, camion ñu ngi continuer di fi gaare benn waaye moo fi ñëw di leen euh, def parking fii di leen euh, laaj xaalis te amul benn autorisation wax naa ko mairie wax naa ko itam police commissaire bi fi nekkoon dem wax naa ko ko il est parti man wax naa ko ko mais bëggul yow benn responsabilité am sous bi il est au courant préfet bi il est au courant gouverneur pareil comme ñoom ñëpp euh, autorité yi fii à Thiès nanguwuñu a responsabilité léegi nag ñun li ñuy def moo di. dem seeti procureur man personnellement maa dem seeti procureur de la république dem si bureau am explique affaire de A pour ñu si ay mesures mesures ñu bëgg mooy que camions yi nañ fi jógee parce que dëkkuñu fi bokkuñu fi nañ dem dëkk dëkk dem gaare yi fu ñu dëkk waaw totale guddi gi pour nga jaar fii problème la euh, oto yi pour problème la doo gis sa droite doo gis sa gauche nit ñi problème la te fii mooy la seule entrée principale pour Ngent Extension lool daal la ñu bëggoon ku ñu ci dimbale euh, euh, buñ ko amul daal ñu dem seeti procureur wax nga mu jàppale ñu si baax a baax wasalaam.